asalaamaaleykum mbokk yi a ah, am na mbégte lool di jàkkaarloog yéen samedi bu jot ci waxtu wi seen émission vous et nous ci 2STV yi Sénégal nag dafa am jongante bu mag bu mu war a def suba incha allah ay waay ay waay ay waay yal noonu yàlla may ndam ci kanamu Tunisie yàlla may ndam ay waay waay Aliou Cissé yàlla na ko yàlla may ndam Krépin Diatta yàlla na ko yàlla may ndam ak kan Henri Saivet yàlla na na ko yàlla may ndam Karam Ndour. Karam Ndour ak kan. joor yëpp. ak supporter yal na leen yàlla may ndam. tàccu leen seen équipe nationale. nag dañuy gaaw ndax dañoo am direct léegi léegi léegi léegi dañuy dem seeti ki nga xam ni mooy. <laughs> naaru darmanko bi kooku it kan mama mama eh mama mama mama mama mama na nga def kii moo bëgg ambiance ci xol bi ayca <laughs> salaamaaleykum papa salam tere mese kulo ah Kulu Kuyaate. Kulu Kuyaate Kulu Kuyaate. Jinde Marie Furo Jinde Omaro Gueye Jinde Papa Salam Jinde yi toog ci plateau bi yëpp nuyu naa leen maa leen di ziar di leen dalal ak jàmm suñu plateau bi di vous et nous di kontaan loolu nag yéen ñi safoo la 2STV heure bu baax bi bu jotee rek da ngeen di bàyyi yéen ñëpp seen yitte daal di jàkkaarloog ñun ñun nag pour bëggeen ren rek ñoo ñu fi tax toog te it nag lu leen neex rek ci la ñuy dox Papa Salam ma delloo la kàddu gi ñu daal di wéyal rek ba ci kanam. jërëjëf ko koy sama darmanko bi. Eh. mu xale bi nga xam ni fii ay tàngala fi ne waaye nag des na tuuti waa fari industrie laay woo ñu jël ko moom def ko tàngal ndax daa rafetee ni tàngal macha allah kookoy kan taalibi sëriñ Babacar borom Sakariya borom Borokar bi bàyyi sëñ Mansour si ah nday Assou Sall taalibi Cheikh. tàcc la Sénégal Miss Sénégal. njool mi. salaam ba ma tàngal ban tàngal nga may def laa bëgg xam. tàngal laa lay def teg la fii. ban ci bi la lay def. madd bi nga bëgg ne. Ah, ah ah. def ko barak bu bëri poñ. Ndeye Astou ana looy nuyoo. waaw ah, salaamaaleykum Papa Salam donc salaamaaleykum toute l'équipe de vous et nous salaamaaleykum encore euh, ñi nga xamante ñoo safoo saa su ne chaque samedi di àndandoo ak ñun ci seen émission préférée bii di vous et di wax ni que immense plaisir la am chaque samedi di àndandoo ak yéen ci plateau bi di leen béggal di leen servir parce que loolu mooy suñu credo di wax ni que ñu dem dellusiwaat incha allah gën a yaatal. koo koy xartu footballeur yi xartu mm-hmm. nga xam ne tricher rek la saa yu waree indi équipe day dem fa nga xam ni mooy ñaay wala Jeanne dem jël fa ay joueur indi leen pour ñu toroxal ba yi kooku nag bu fi amee tey <laughs> kooku nag mooy kan Baxaaw le rappeur des rappeurs. salaam merci si nuyoo bi salaamaaleykum ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal plateau bi maa ngi nuyu ku ci nekk si turam ak santam. di nuyu waa àdduna di nuyu waa Sénégal di nuyu ñi nekk ci prison yi si hôpital yi ku ci nekk fekk naa la fa nga nekk jox la loxo dugg bi campagne naa jël sama nuyoo jox ko borom t-shirt bi na ko nuyu ma ña fa ñëpp ku waaye nekk daal jox naa la loxo na la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu aleykum asalaam wa rahmatullahi wa taala wa barakaatu wa caatu kër gi nag moo ñu dee juddu gën a baax gën yaru ndeysaan da koy sax yërëm koo koy kan topp bi sa padeexe Oh, oh. gàcc ki gëdd gëdd saa paadaaxel oh, raba ci ki jambaax gëdd saa paadaaxel boo <laughs> koy soxla merci beaucoup Papa Salam tey ci nuyoo bi kontaan naa trop vraiment sama xol sedd na ci yow di nuyu ñi ma bokkal plateau bi yëpp di nuyu suñu mbokku téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo taamu la 2STV samedi bu jotee 21h bu jotee rek ñu daal di taal di seetaan vous et nous di leen nuyu yéen ñëpp di nuyu ñi nga xamante ne ñoom la caabi féetee ginnaaw di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm ñu génnee fu ñu nekk di ñaanal aussi ñi nga xamante ne ñoo nekk ci hôpitaux yi di leen ñaanal bu baax yàlla fëgg seen i bopp ndax seen i njaboot soxna nañ leen torop ñu dawal ba ci kanam sëñ ndeysaan ndeysaan ndeysaan oh bébé bébé am bébé merci beaucoup bébé am bébé am ki may présenté nag élégante intelligente belle sublime dëkk Ndar Géej. jovial. jovial même ku ma mën a dolli beneen mot en français. vogue vogue. si plaza. si plaza. nen marabitu. waroo waroo bul ñu rey waaye. lépp la dajale kii yaay bébé Mohamed <laughs> doomu nday coro sama doom baax gën dem ba France sigil ñu dem États-Unis Londres fu ne mu dem ñu ne nag yow yaanu doy del ñëw dina wéttali tous les samedi ñu gis la sunu kër kookoy Eva Chon tàcce gi loolu <laughs> ah, jërëjëf Papa Salam li nga présenté di neex na trop macha allah wante dama juste avant may nuyoo rek tontu ki nga xamante kenn xamul dafa o kenn xamul dafa u Omaro waaw yëkk si tuuti oo non kii oowul de lii du oo de. non mais oo oo nekk xale dañu màggandoo ak genre bëy yooyu ñu tuddee abasa. ay da ngay toog di ko seetaan. da la ko timbax ri mbax ko ko. salaamaaleykum mbokki téléspectateurs <laughs> euh, ko xam ne bu toogee da gis mare bi. di gis ndir ba di gis bokk ci plaza ñëpp daje aw ma lu ma wax ak moom wax dëgg yàlla loolu lu ko neex talu ma ko. y' euh, <laughs> bi nuyu naa leen na ngeen def. naa trop tey ci toogaate yéen ci samedi soir bi saf jinne bale moom di nuyu ñi xam ne mooy <laughs> man la bañ. bàyyi leen sama doom ji. bàyyi leen sama doom yi na ba toll nii xale bu neexee nii dafa ma fàttali sama ndaw à Saint-Louis mooy daan xale bu neexee nii mos ko am mooy bëy boobu nga xam da nga xëcc si biir rek pes bàyyi leen li ngeen def bàyyi leen li ngeen def kii sama doom la kii c'est le plus jeune PDG de l'Afrique de l'Ouest com taalibe Cheikh Béthio waaw waaw njool ca kaw canta fashion ñëpp bëgg ko canta fashion baax gore gën xola riche ki nga xam ne nag man sama bopp maa ko bëggal sama bopp ndax li mu bëgg Cheikh Béthio bëgg papaam salaam mag papaam ñoo doon comme tey ci man kooku amoro mu Cheikh Béthio tàcc leen na jërëjëf le jeune PDG de l' Afrique de l'Ouest il est plus endetté de l' Afrique de l'Ouest Alaaji Papa maa ngi am mbégte mën ngeen déglu wala mënul dama leen dàq ci acca ah. am ku yaate caméraman mag bi ak am di mu jàkkaarloog man ak biru noo xam nañ ne teraanga àddina bët la. te xale bu neex baa ngi nii toog tubaarkàlla. Mm. dëgg la dëgg neexul baax gën wiis donc nga ma pire. ñu ngi nii toog. kon mbete yi ak mbote yi amul <laughs> <laughs> may wax ak ñoom wax ak ñoom. Youssou Ndour waykat mag bu way na ko de. nee na bu leen déglu ay bojo bojo la man bojo bojo taxumaa jug déedéet man samay kaddu ak samay moo du jëm ci bojo bojo. ba tax na papa salaam maa ngi bëgg ci yow sama bàyyi ji nga xam ne keroog ban may ngénte yaa ngi toog te ñaawoo ci dara yàlla si jàmm yàgg tene be sa kuloo kuloo ku yàtti jinne maari fuloo jinne moxusa jinne bébé soxo jinne mama jinne asu sàll mu baax nii waaye jinne am bi jinne momo jinne cameraman bu mag bi am ku yàtti ak Bruno ñii laay nuyu tey ak ki nga xam ne mooy Amadou Ndiaye suñu réalisateur bu mag bi bëy yi fi toog nag ak mbote yi aw mag ñoom wax maare maare ñu góor ñi kër xamul ndax ay góor lañ jigéen ñu jigéen ñi xamul ndax ay jigéen la ñu ki góor papa Salam doxalal plateau ba mu gën fay yàlla na yàlla timbax rimbax tumba rumba c'est le Sénégal ki maa la wax la de mais ba jamonoy baax góor daan na jongoma góor pire day jongoma évasion ne ko vingt-et-unième ne jërëjëf léegi nag le vingtième siècle ñu dem ci la góor daan doon njagamaar ak façonnaaru góor waaye vingt et unième siècle nag Papa Salam. dañuy jongo bàyyi mu seet. <laughs> léegi nag ñu dem ci remember ki nga xam ni mooy maman sama darman ko maman ana foo ñu demal. Ah, xam nga Papa Salam euh, dañu nekk ci actualité. maanaam football bi tey mhm. nag euh, vous et nous dañuy dox ci actualité bu baax a baax tey nag ku ñuy fàttaliku dafa jëloon meilleur buteur du championnat de France en 1986 ci même at boobu mu daal di euh, qualifié Sénégal à la ñu daal di am na loolu dem seetaani élément boobu ñëwaat sur le plateau ñu daal di xam kan la ay ca ñu Remember, every sound of xam naa yaa ngi may dégg xam naa xam nga kii wax ak yow man yow yàgg nañu suma prépare benn match te veillu match bi ñëwul fanaan na man suma nekk di ma conseiller. di wax ak man ma jox leen benn anecdote bu tuuti rek am na benn match bi ñuy joué Namibie bi fekk ñu waroon gagné 4-0 ou 5-0 pour qualifier ñu gagné 2-0 mu woo ma moom at Bruno Metsu ñun ma El Hadj il faut ñu dugal beneen ma ni ko mais grand man am naa nan lay defati léegi ñoo gagné 3-0 kay baax na mun ma déedéet def ko pour man. parce que xam naa ne wóor na ma du ma fekkee coupe du monde bi buñ ko parce que xam naa ne naa bàyyi sama xol fii ndax li ngeen di defal Sénégal. mu nekk kàddu yu nga xam ne El Hadj Diouf daanaka yëkkati ngir delloo njukkal ki nga xam ni moo di jël François Bocandé et pourtant nag carrière footballam naroon na yem ca ba muy door gannaaw bu ma amee ñaar fukki at benn fédération sénégalaise de football daal di koy daan ci giirub dundam gannaaw ay ñaawteef yu mu demoon ci benn arbitre ci buñ doon joué finale coupe du Sénégal ci jamono boobule nag ab ndaw jóge ci mim réew mën na dem bitim réew ngir football yi nekk na lu jafe lool waaye bañ ci tegee juróom-benn weer la ki nga xam ni mooy doomu Ziguinchor bile daal di dem fi nga xam ni moo di Belgique foofee sax la dooree li nga xamante ne nii mooy carrière footballam ci Europe gile mu doon def ay jàlloore yu rëy ba yenn club yi daal di ñëw jënd ko ku ci mel ni Metz foofee nag bokk na ci ñi nga xam ni daan nañuy bokk ci taarixu club bile ndax ci ab final coupe d'Europe des vainqueurs de coupe bu ñu doon amal mu nekk jongante bu nga xam ne ñu ngi ko doon amal ak équipe bi di FC Barcelone moom Jules François Bocandé bile. gannaaw seen jongante bu njëkk bu ñu ñàkk seenum réew ñu daal leen door ñeent ñeenti bal ci benn ñoom nag ba ñu demee ca Barcelone rek daal di koy def li nga xamante ni moo di remontada moo moomee sax mu daal di def passe bi nga xam ni moo tax bu ñu am ndam. ci kanamu équipe bu Barça bile bu mu jógee foofu rek dem fi nga xamante ne nii moo di Paris Saint-Germain mu daal di fay amal lu toll ci ñaar fukk ak ñeenti ci ay jongante daal di dugal juróomi but ci ab saison bu njëkk waaye nag diggante moom ak Paris Saint-Germain am ay lënt-lënt ci ñaareelu saison bi euh, juróom-ñeenti jongante yi mu joué benn but rek la ci daal dugal ci novembre ci atum 1987 mu jóge ca Paris daal di dem fi nga xamante ne nii moo di Nice foofay sax la desandi 1988 mu dem fi nga xamante ne ni moo di RC Lens 1991 ba 1992 moom nag mu daal di jeexale carrière ca Belgique jongante fa lu toll ci juróom-benni match daal di fay dugal ñetti but si noonu la daal di ñibbisi fii ci Sénégal yor équipe nationale bi ci atum 1994 daan leen yóbbu fi nga xam ne moo di quart de finale bokk na ci li nga xam ne moo tax ba Jules François Bocandé ñu gën ko ràññee mooy ci atum 1986. gannaaw fukki at ak juróom-ñett Sénégal demul ci Coupe d'Afrique bile moom Jules François Bocandé moo daal ñëw moom Jules François Bocandé daal di yóbbu Sénégal ci boble CAN ci ab match de qualification bu ñu doon jongante ak équipe bu Zimbabwe moom nag ñett bu Sénégal daal di dóor équipe bu Zimbabwe ñetti bal ci dara moom Jules François Bocandé bile mu daal di dugal ñetti but yëpp tey footballu Sénégal bu tolloo fi mu toll. bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ko liggéey ak dëggoom courage am waaye itam xarañteem bokk na ci li nga xam ne daan na tax bu joueur yi daal di def seen kéem kattan ak génn àddunaam juróom-ñaari fan ci weeru mai ci atum 2012 gannaaw bi mu amee lu toll ci 53 ans ca France ci ab du corps nag mbooloo bu takko takku daal di fay teew ku nekk di seedeel ni Jules François Bocandé nekkoon na nit koo xam ni patriote dëgg la woon. Remember, ah, sama doom nag génn nga fu neex. waa papa Salam gis nga ni ñoom ñoo ko seetaanandoo kooku nag mu nekk euh, légende bu mag di. Euh, Bokandé te it nag bokkoon ci staffu Bruno Metsu en 2002 moom it mu defoon fi jaloore bu nekk jàppale woon waa génération 2002 ku ci mel ne El Hadj Diouf da leen doon boste da leen doon di leen wax ay jàmbaar ngeen di leen wax góorgóorlu leen te Sénégal dañu yaakaar ci yéen man même chose laay wax équipe nationale parce que euh, Papa Salam ay jàmbaar lañu am te it nag ñu am coach bi di Aliou Cissé te it nag nit ñi yaakaar ko loolu moom it muy def liggéeyam mais dafa am benn affaire boo xamante ni daf ma ci sénégalais yi que dafa mel ne match bu amee rek ñëpp dañuy doon ay coach match bu amee rek kee day wax fale kee wax fale kee wax fële te man pour man loolu mën na ñàkk ndaxte dañu wóolu Aliou Cissé moo tax ñu def ko coach kon nañ ko bàyyi rek mu daal di ànd ak xelam nañ ko bàyyi mu daal di ànd ak boppam daal di liggéey daal di wéyal ndax ñun moom la ñu yaakaar ñu nag Sénégal la ñu yaakaar tey nag lii laa leen indiloon ci remember dama koy gàttal parce que temps bi euh, daf ñu xoj di leen wax rek ba samedi prochain ma daal di indiwaat leen incha allah. yàlla na sa jàmm yàgg tàcc leen loolu yow moom. wax nga au nom de vous et nous borom kër gi madame Ndiaye monsieur Ndiaye gi wax nga ñooy waay waay tàccu la ma sama doom ji waay léegi nag saa yu egsi fii dañuy egsi ci rubrique dans la poudre xale bi nga xam ni bu demee ni pharmacien la nga defe moom la bu ñëwee toog place tàngal nga ne tàngal la koo koy nday asu sàllu tàccul ma loolu waay sama doom ji baax nday su ana tay foon dema ah? waaw papa salaam damay ànd ak waa Régie rek ñu dem yóbbu ñu dans la poudre ñu dem dellusiwaat élément comme ñii ñu ngi si waañ bi. ñu bi waaw léegi fii. Mhm. fii day am prise. waaw fii de am prise prise. Mhm. fii am prise. waaw léegi ça veut dire que ni comme par exemple boo bëggee am machine à machine pour ay café. waaw ay micro-ondes. Mhm. affaire yooyu si ñu koy bi. waaw dañuy xotti miir avant carreleur bi di ñëw. parce que buñ carrelé ba pare. dootoo mën def Okay. lii mooy marque bi ak brin. lii da ngay topp ci trait bi nga jiwoon nga def. ok. léegi nii lañ koy toppee. waaw. waaw pare. Mhm. dugal fii. ok comprendre waaw léegi suñ ko dugalee fii après mhm. léegi dañuy buñ ko dugalee fii dañ koy cimenté waaw léegi ciment bi léegi carreleur bi bu ñëwee mhm. carreleur bi moo ñëwee carreleur ci kawam bu ko fee doo gis sa utilité différentes couleurs yi waaw léegi loolu laa la bëgg a xamal ni mhm. léegi brésil daa am euh, fil yi daa am bu nekk a boppam moom moo gën a dijj moo gën a dijj moo gën a am doole pour ay prise la waaw mooy bii wala mooy waaw moom mooy bii. bii mooy deux cinq. deux cinq léegi. ngeen mhm. koy ay mi maçon ngeen mi électricien comme da ngeen di raax. dañuy raax. dañuy dañuy raax. Mhm. dañuy dañuy dañuy dañuy. toj di raax par exemple nii. Mhm. da ngay mesurer ba ba mu mën a. ba mu mat ci biir waaw tolloo dimension. nga jël sa ciment. wala ma jox la nga. waaw indi léegi da ngay. mu ma sa apprenti tey kay. waaw léegi da ngay tooyal kii bi. léegi c'est bon. c'est bon ah. léegi jëlal turel bi mu wàll. ok. léegi nag boo defee ciment ci côté yi ba mu baax. nga xamante ne boo dugalee nii. day taxaw day taxaw nii. très bien gis nga. Mhm. léegi niveau bi. Mhm. à chaque fois moom moo lay guider ba xam bi jub na. waaw wala dëng na. ok bu ndox bi nekkee au milieu. mooy tolloo na mooy tolloo na. léegi mu ngi si mu ngi si jubaay. mu ngi si dëgg bi effectivement. léegi nga natt fii tamit mu ngi jub. Mhm. côté bii. moom mi ngi nii. effectivement fixé nga ko bu baax. fixé naa ko nii bu baax ciment bi moo koy téye. waaw monsieur léegi jàllal. waaw. da beneen prise fii. léegi waaw ak beneen fii. D'accord waaw muy 3 muy 3 président léegi nga def nii ok léegi pour nga bi da nga koy soxla parce que moom moo lay may nga mën a takk fil bi def nii pour nga takk ko pour mu ko takk si filifère pour xëcc ko. ok mu génn fële. ah d'accord ok. ko defee nii. Mhm. comprendre. Mhm. léegi boo defee nii. waaw ah. da nga jëlee sa ciment nga fàtt. waaw ci ci li nga gis boîte yi. comme boîte léegi. courant la. waaw prise télé la. d'accord ngay gis écran plat yi. waaw gis en général ci kii. Mhm. waaw da ngay def ci prise. waaw écran donc moom laa rafetluwaat ci nga soxla télé boo xamante nekk. lay nekk ok nga jël sa prise fii. Euh, léegi comme li ma la ko waxee néeg bu nekk. Mhm. day am branchement boobu am télé. ok léegi ñoom ñëpp fi bi. nekk boîte bi. waaw bu nekk day séddale télé néeg bu nekk day am day am. Oh, télé doo gis. filiinaaw Jiji. ah ndax fii di génn dem ci tere bi ok waaw. mais am naa woo de. waaw waaw baax dafa def direct ñëw fii léegi moom. du jar moom antenne bi ñuy nekk di xëcc fii. di wër fii mooy centralu eh, appartement bi. d'accord léegi léegi euh, circuit bu nekk. Mhm. daa ñëw fii. ok nekk circuit ngi fii. Mhm. néeg bee tamit circuit mu ngi fii. am yi fay. ok. ngay taal suuf boobu ñu tàkk mooy gismatique bi waaw. nga fay di lu am njëriñ ci suñu dundu nekk it liggéey boo xamante ni bu am ay danger la te complexe donc dafay laaj ñu xam ko ngir mën a suñu bopp ak suñu njaboot ci ay loraangeem à tout à l'heure sur plateau pour y débattre. Eh, eh, sallam tooro. Bourgué waa fay fi nga génn tey. waaw moom salaam comme tey rek euh, dans la peau de moom fu ne lay génn ak yéen donc tout ce qui est métier boo xam te ñu ngi koy am ci biir réew ak fépp ku mënti nekk dañ fay dem àndandoo ak ñoom wan leen liggéey bi ni muy demee wan leen nga xamante liggéey bi naka lay demee donc tane dama ñëwoon àndand ak euh, ki nga xamante ne mooy sama électricien euh, def li nga xamante ne mooy électricien en bâtiment donc un électricien nekk ki nga xamante ne mooy un ouvrier chargé de l' installation ak li nga xamante ne moom mooy tout ce qui est dépannage et tout concernant les réseaux euh, électriques donc mu nekk métier boo xamante ni c' est un métier vraiment sensible à risque aussi ñu signalé ko mu nekk euh, électricité nekk loo xamante ni macha allah ñun dañ ko soxla suñu dund mhm. rawatina fi nga xam ne fi la réew mi toll macha allah on est au vingt et unième siècle xam ni que la technologie a avancé euh, vraiment d'un grand d'un grand pas euh, mu nekk loo xamante lu ñuy lu ñu yitteel la parce que mhm. tey suñu ay smartphone suñu ay machine yi nga xamante ne moom la ñu communiquer moom la ñuy liggéeyee li nga xamante ne moom mooy tax ñuy avancer ci lu baree baree bari donc on a besoin d'électricité pour que loolu mën a nekk en marche tey euh, aussi mu nekk métier boo xam c'est à risque comme ni waxee tantôt am ñu bari ñoo xamante ne xëy na dañuy utale loolu moo tax yenn loraange yu bari diñ ci dal donc euh, c'est bon à savoir ñu xam ni que tey métier la boo xamante ne dafa dafa dafa nécessité dafa nécessité li nga xamante ne mooy un savoir-faire professionnel mmh. cela veut dire que koo xamante ni donc tu n'es pas professionnel sur ce métier amoo droit li nga xamante ne mooy euh, yenn problème am wala yenn défaillance yi am ci côté sa ay électrique euh, ci sa ay euh, ay câblage ak yu mel noonu ay installation nga dem di ko defal sa bopp donc métier la boo xamante ni il faut nga mën ko jàng ko soog ko di di ko mën a exercer souvent ñàkk ko maîtriser boobu moo waral tey lu ci baree bare bare mu ñuy dal ay loraange yoo xam bu ñu xam tey des fois nga gis ñoo xamante ni day am ay ay yenn masse yu am wala ay yenn lakk-lakk yu am yenn problème yu bari yoo xam ne dafay am souvent lu koy andi mooy branchement yi nga xamante ni baaxul parce que dañu yaakaar ne suñu xel doy nañu ñu ñëw tey utiliser ko alors que xamuñu nuñ koy utiliser xamuñu lii fu ñu koy def xamuñu lii ñu koy def di def ay branchement yoo xamante ni donc jaarul yoon souvent aussi muy andi ay dégâts yoo xamante ni chaque jour benn fan ñaari fan nga gis marché bu lakk benn fan ñaari fan nga gis kër goo xam te dafay am ay ay lakk yoo xam ne ci courant lay jóge e je pense que ni ñàkk xam li nga xam te ne mooy courant ak ak risque yi ci nekk moom moo tax donc dañuy woon tey juste pour li nga xam te ne mooy métier bi pour vous montrer que ni courant am njëriñ la suñu dund mais aussi loo xamante ne c'est un à risque ku ci amul lenn lu ci loo xamante ni sax xalaat la euh, lenn loo xamante maîtrise la waroo ko utiliser juste rek loolu laa andi woon tey comme dañuy gàttal di remercier Younous mi nga xam ne moom laa àndaloon tey sama rubrique dans la poudre. loolu loolu solo. nit nit ku baax lépp looy jàng dafa war a mokk waaye doo jël loo xam ne maîtriser woo ko lu mel ni courant risque la gis na ñu bëri faasu nan ci lu mel noonu ñu bëri tal nan ci ay marché tal ci ay hôpitaux lool ci ay doomu aadama donc lépp lu doomu aadama di jàng rek na mokk tàccule man day as bu baax a baax a ñu jàll nag ci ki nga xam ne nag ah mooy baxaaw baxaw nag moom dafa indi rubrique boo xam ni li neex doomu adama yi ak leen métti ci dëkk bi loolu rek lay dox man loo tax man man bi man rubrique bu ma bu soxal la bëgg naa na nga ñëw ba sama kër man tamit nga laaj ma la moom mooy déranger baxaw ana loo ñu indil tey élément élément bi daal li ma fi déranger bëri de mbal mi ñuy sànni bousee yooyu noonu déranger na ma waaw trop sax da ngay gis kuy dox ba ci yàgg naan kaasu kafe sànni ci digg tali bi te loolu du yoon. Euh, di wax ne dëkk bi daal moom insécurité bi daal moom metti moom metti vraiment ñu jàppale jeunes yi ñu liggéey loolu tam dina am solo ñu liggéey tam ñu bàyyi wax bi quoi ku nekk li doxal sa réew xam nga ko ñu bàyyi détails yi bàyyi coow li ñu liggéey parce que ku liggéey rek yow dinga am li nga bëgg liggéey mooy lépp. ñu bàyyi sànninte xeer bi ñu bàyyi iñaanante bi soxorante bi tamit ñuy jàppalante. ah jigéen ñi rob yi ñu sol rek moom a déranger rob yu gàtt yi la war a bàyyi jox seen bopp cër ay rob yu gàtt moom baaxul waaw. ah suñu ko wanee tamit seen ñàkk fayda la de ndax baaxul seen cër yëpp si biti exposé ko nii comme table baaxul de. dëkk bi de li ñu ci naqari bari na. benn kilifa yoo xam ne yii bu ñu waxee nga téye si gémmiñ kilifa yoo xam ne yii dañuy ne ci rajo yeeg télévision yi di saagante dawante lu ne te ñu war a doon royukaayu askan mi ah loolu daal bu ñu ko mënee dindi lu am solo la. man ah dana déranger mu ci réew mi loolu violation bi rey bi metti na agression bi metti na léegi booy dox di ñibbi sax say bagage da koy jël di ko protéger sa biir yaram ba nga yegg soo ko génnee loolu dafa metti violation bi dong dong moo ma déranger si réew mi agression bi métti na nañ ci wax. nit ñi bëgg nañu liggéey mais dañuy iñaanante mais su xolu ki ñaan dañee daal defe naa jàmm dina am liggéey am ku nekk nekk si sa bopp du am temps pour di def yenn yi kon yal na yàlla dool ñu sutura jàppale ñu mais ñu xolu muñ ñu muñalante daal. nañu jéem a jubbante waa taxawaay yi te fas yéene tënku ci di neex yàlla yéenante jàmm. te muy dëgg ci ñun bu ñu ko defee rek réew mi am jàmm waaye di yéenante ci làmmiñ te xol yi ànduñu loolu amul solo. lu ma mi dérange si dëkk bi daal mooy jeunes yi toog liggéeyuñu nekk si bopp koñi su mars jotee nu mars di naan dañuy saaga président yi nga war a dem liggéeyi nit ku mun nga liggéey def sa bopp da doo faale benn gouvernement xale jigéen yi nag nan dem liggéey da bàyyi mbaraan gu ñuy def amul njëriñ waaw. mbaraan non non non non duñu mbaraan. amuñ lu ñu mbaraan parce que xale yu góor yi kenn mënu leen mbaraan mais boo gisee kenn koo xamante ni koo bëgg mu bëgg la jàppal si moom rek te yàlla def lu gën. am solo lu am solo loo xam ni daf ñoo soxal fii nga génn ni say baxaaw hmm. ana lu waral lii. waaw salaam gis nga je pense que ku ci nekk si ñoom tey wax nga lu lay metti mais damay jël benn point rek. ci euh, wàllum colin bi ñu xoolaat colin bi c'est important aujourd'hui tey euh, dëkk bi mel ni Sénégal lañ nekk euh, war nañ xoolaat suñu façon colin comme koo xam moo xam ci surtout ci xale yi jigéen lay wax parce que tey de nos jours da ngay gis ne euh, américains yi daf dañuy nax ci bari salaam. Mm-hmm. tey li ñuy sol si seen ay vidéo sañu ñu ko génnee ci mbedd mais tey di li ngay gis ne moom la ñuy sol bi seen vidéo tey ñun ñu ci ëpp la ñuy sol di dem ci boîte di dem si yi nga xamante ne je pense que tamit jigéen bu nekk rek ñan nga yàlla jur wala yow te am na yenn comportement yi nga xamante ne ne boo ko amee ak yenn xeetu colin yi Euh, dina doy waar trop parce que dañuy faral di wax ne ngelaw mën na la duggee fu ne donc euh, ñuy xoolaat surtout colin yi defaraat ko parce que bu njëkk jigéen am na taaram trop daan na solo noo xamante ne wax dëgg yàlla day gën a yokku taar waaye solo solo boo xamante ne dafa ëpp dafa ëpp wax dëgg yàlla euh, pour man war nañ war na mën a war na mën a wàññeeku ci réew mi pour man nit ñi war nañ mën a xoolaat nu ñuy solo parce que sénégalais yi léegi dañ dem nga xamante ne ne dafa mel ni daña daña daña daña bëgg a toppandoo américains yi daña am fit léegi ci domaine yëpp quoi fait boo génnee ci mbedd bi da ngay gis xale yi ni ñuy soloo dafay doy waar nit ñi nee nañu ñoom waa boobu nee na xale yu jigéen ni ñuy solo moom moo ko kii ah. mais parfois tamit xale yu góor yi aussi ñu ngi solo solo yoo xamante ne mm. xale yu jigéen ñoo koy solo mm. parce que góor boo xamante ne dina solo xeetu jiin boo xamante ne da ngay yaakaar ne est-ce que sëram moom mu jiin jiin bu xat <laughs> <laughs> loolu doy waar loolu war nañ ci def réunion de famille mm. Sénégal. oui est-ce que si téyeer yi la wala ñi di wala ñi di touche ñi solu la ndax dafa am ñoo xam ni yaakaar na ni bu nu solo mu fees dell solu nan <laughs> fekk solo ñu ñu ngi gaañ doomu aadama yi yow mi nga xam ne yaa def tamit stylisme loolu incha allah sama émission bii di ñëw Eva dama la ci soxla ndax yow loolu lañ ko liggéey représenter le Sénégal dignement partout dans le monde ah, entier. mooy c'est les victimes de la mode rek. mooy ñi nga xam dañuy suivre tendance. dafa ñoom ñooy solo indécemment. très bien loolu dinañ ci ñëwaat dinañ ci ñëwaat ndax. sam papa woo ma nee ma nañ ci def débat. El Hadj ma ci kanam Omaro. dëgg la mun ma nañ ci def débat. neen nañ ko yaatal. ana tey loolu indil. Euh, waaw Papa Salam comme euh, tey euh, temps bi daf ñu xooj nañ dem région seetaan élément bi on revient sur le plateau. sachet plastique yi ñu ngi fépp foo dem ci ndakaaru wala ci gox goxaati fekk leen fa. bu ñu sukkandikoo ci yenn xayma yi ñuy xamal ne fii ci Sénégal sachet plastique nga xamante ne dañ leen a daal di bandone bés bu nekk rek day yokk ba juróomi million jafe-jafe yi nga xamante ne nag dañ koy indil alam bi wala sax wàllu wér yaram bi kenn dootu ko naatable. xëy na ñàkk xam moo ko waral parce que su fekkente ne nit ki xam na ni jëfandikoo plastique bi. Eva eh loolu am na solo. waaw Papa Salam gis nañu élément bi li nga xamante ni moom mooy euh, xeex bi ñu nekk di xeex ministre bi di nga xeex ànd ceeg autorité yi ànd ceeg sénégalais yëpp bëgg ko ci nekk ñu dimbali ko moom mooy dañuy jéem a éradiquer li nga xam ne moom mooy utilisation de plastiques dans ce pays. Mm. parce que yàgg nañ koy xeex ça fait des années et des années ñu ngi ciy wax te teewul ba tey nit ñu ngi koy. population bi ñu ngi koy continuer di ko utiliser te loolu c'est un danger c'est un danger pour population parce que doo am environnement bu sain déjà c'est un danger en plus pour les animaux ndax pourquoi c'est un danger pour la déjà pour la population mooy que plastique tey da koy sànni ci mbedd bi mën na dem des années et des années plus tard boo ñëwee da nga ko fay fekkaat mhm. du du du du euh, du daj comme mhm. exactement mais du détruire complètement mhm. bu fekkente ni c'est pour les animaux animaux yi bu ñu ko lekkee mu des seen estomac du rees donc nañ leen jàppale ñi nga xam ne moom mooy population bi nañ jàppale gouvernement bi nga xam ne jël nañu ay initiative pour xeex lii ñu éradiquer ko génne ko suñu réew complètement parce que actuellement mën nañu utiliser des sachets en carton mmh. mën nañu éliminer déjà moi j'ai amené un exemple de pipette mmh. gis nga lii pipette la te pipette bi pipette en général mooy li ñuy naane boisson mmh. partout dans tous les milieux boo demee maanaam ko doon naan voilà dañ lay pipette en am na pipette boo xamante ne xoolal xam nga déjà lii c'est dégg euh, pipette wala paille paille wala pipette boo ko waxee rek baax na gis nga lii kayit la lii dafay dafay euh, day sëy par exemple dafay yàqu. lii nii da ngay lekk paille bi en même temps naan ci sa boisson suture. lekk paille bi ci boppam paille c'est mangeable. lu mu doon euh, euh, fromage la wala. yow laay bàyyi nga goûter nga xool tu verras après nga wax ma goût bi a te te ngaa jox. teel goûter en fait tu verras le goût que c'est sucré. et puis c'est bon en plus. ku ci def suukar si. ni lañ ko tu vois. Omaro waaw Papa Salam. ah xanaa ma jox la nga mos rek. doom ma ñam ñamal. mais xampal ci paay bi un peu. ci goût ci verra waaw da nga koy lekk. amaroo de. suñu xol la sama paay bi ci ba pare en plus day seey tu vois. day seey day parfois avant sa boisson di jeex sax. <laughs> ma génneel la ko. waaw loqati ko sama loxo dafa am yoo xamante ni tubaab nga yelloo te yow tumaloo. <laughs> tumaloo waaw. Ah, ah, waaw léegi. tu sais parfois avant sa boisson du jeex tu vois paille bi day seey. ba jeex nga jël ko lekk ko. tu vois c'est très bon. t'as vu. Omaro dan wax nga naan wax ñu nga yéey. indi lii li ngay def. Omaro <laughs> yow Omaro yaa ngi bi de. jeexal na ko tàkk. xam nga bu ñuy wax genre xar yeeg nag yi taxaw ci mbedd mi. yow mi yaa <laughs> taxoon. <laughs> man Eva par contre bëgg naa rek xar yeeg nag yi di lekk toile yi est-ce que xar ak nag yi war nañ leen mbedd bi tamit hmm? ah Bakhory des fois man li ma dégg hmm? à Dakar. waaye Dakar saf na de. dëkk la boo xamante ni t'as vu que c'est bon ah. am ngalax nga dëkk la boo xamante ni Dakar dëkk la boo xam ne dafa am dëkk ndox la. te dëkk ndox boo gis des fois daf il dafa laaj am lu leen di protéger. Hmm. am na nag yu bëri yoo xam ne ñu ngi traîner ci mbedd bi. Hmm. nag yooyu personne n'ose les toucher. dafa am borom tey ku ko laal tey dara fekk la parce que ils ont dit que c'est mystique. man loolu kay loolu taxawal foofu tegal sa baaraam foofu tegal tegal dafa ni baaraam effectivement yow baxaw seen koñ côté yooyu dafa am group bu nag yoo xam ne dañuy dox benn bu ngand mooy nekk ci kanam na ah. non mais jusque nag <laughs> dox. di wër à chaque fois waa ma yeggale dañuy romb dem. te loolu la nit ñi bisee waate te leen moom ak fu ñu jëm. ak nan la yoon bi. non parce que nag yi dafa am ñoo xamante ne ñoo leen moom. Mm-hmm. dafa am ay ñi nga xamante ne ñoo leen di sàmm ñoom ñoo leen moom donc nag la yoo xamante ne ne gétt lañu parfois ñu libéré leen pour ñu dox benn kilomètre pour demaat ut lu ñu lekk après delluwaat mais man li may man li may wax tout question de nag yi nekk c'est-à-dire que li may wax tey woon aujourd'hui xam nga bu njëkk da nga daan gis koñ bi dugg gis fa ay xar tey léegi boo xoolee xar yëpp dañ leen takk xar yu ci bëri dañ leen dañ leen takk ku ci nekk sa xar da nga koy tëye buntu ba mm. mais mënuñu comprendre tey am Sénégal fi ñu toll ngeen ne si ban si ban année lañ nekk da ngay dem fi lu tax ay place de l'indépendance ay yenn affaire doo fa gis ay nag. eh place de l'indépendance ah, gis naa fa charrette gis naa charrette place de l'indépendance. waaw fas. mais charette moom charette moom bu sax yàgg ñun ak ñoom léegi ñu commencé neex parce léegi ñu laaj léegi ñu commencé am ay permis di stationné aujourd'hui on est à Dakar tu pas du tout dire que war nañ fa mën a gis nag c'est impossible waaw mais léegi li tax waruñu ko salaam non d'accord parce qu'il y a des zones pour ça léegi Papa Salam li ñu wax ci nag yooyu dama ci am anecdote boo xam ne dama ko cee bëgg indi déglu leen ndax yàlla dogal na nag yi ñoo ma yar man mag yooyu waaw nag yooyu di romb ci Liberté 6 sama buntu kër la ñuy romb bis bu set ca terrain ba ba xaw xam ne li may wax ndax day ñëw sama kër Liberté 6 sama kër yaay yooyu nag nag boo juumee ba jàpp ne amul borom benn boo ci laa dootoo ko dolli waaw lu am sax benn mbokkum taalibe bu ñuy wax Pape Modou bu ci mas a jël benn daal ci woote ak cant waaye ci la gëj a cant ba tey jii <laughs> cant cante daf ko tufe tufe mu saf mu am soos am kaani am poobar waaye keroog la gëj a cant ba fii may wax ak yow boo ko dee cant sax mun a santuma waaw Omaro tu marché sur ma langue ah kon xam nga loolu foofu laa bëggoon ñëw mais waaye wax nga lépp mais Pape Modou fa la gëj a cant ba tey jii <laughs> sama problème mooy nag yooyu kenn du ko laal ndax ay nag yelloo xam ne dafa am borom te fu ñu mën a ne bu timis jotee danañ ñibbi dañuy ñibbi si waat mais kan moo leen woon yoon bi. jarul mais le danger est que il faut qu'on fasse attention aussi il a un danger parce que Dakar déjà dafa surpeuplé Dakar dafa tuuti. Mhm. il y a trop trop de voitures. def il y a beaucoup d'accidents tamit yorom nag yi ngeen baal ma c'est pas que dama leen di def baaraamu tuuma comme ni ñu koy mais am na ay accidents yoo xam ne nag yi dañ koy causé. à Dakar que ça soit au niveau de l'autoroute et ci autoroute à péage mhm. ànd ak ki nga xam ne mooy Baxaaw ak équipe bi ñu dem xam kan moom moom nag yi ñu gisante ak moom ñu gisante ak moom wax ak moom man ma dëkk Daara Jolof xam nag yi nu mu demee du tax doo ànd ak Omaro barke yu mu mbaabu xam kan moom sama nag yi borom nag yi maa ngi lay ñaan nga may ma ci nag yi léegi nag tàccu leen loolu tàccu leen sama nga jënd baax sàppa de xit ana foo génn tey oh. waa Papa Salam comme ni ñu koy defee samedi bu jot dinañ euh, joxe téléspectateur li nga xamante ne ñoom loolu la ñuy préparé ñoom aussi ñu jox ñu seen retour ñu dem seetaan élément bi te ñëwaat ci plateau bi. TV bàyyi ñu bu baax a baax dina sant dina ñaanal kër fan ak yaa Awa Budget Books ñoo ngi lay nuyu baax a baax baax dina umru ak salaam Diallo seen télé bi neex na waa Mauritanie 2STV euh, rek la ñuy seetaan maa ngi leen bégee saa yu ne lay rek ñoo bu baax a baax ñoo ngi leen di nuyu di leen bëgg lu bëree bari di am kontaan bu baax ci yéen seen émission am na solo saa su nekk ñu koy teewlu bu baax a baax. bu Boubacar ñu ngi lay nuyu bu baax a baax yaa awa salaam ak Omaro di am kontaante bu baax ci émission bi am na solo. salaamaaleykum waa équipe bu Séni seen émission bi nuyu toog plateau yëpp am salaam parce astu yow moom danga ñëw neex vraiment danga ñëw neex trop ñu ngi lay ko bégg bu baax a baax nekk leen ci jàmm. asalaamaaleykum waa Ousseynou bëgg naa leen maa ngi leen ziar di leen ñaanal di ko sàkku seen ah bëgg nañ leen lu bëree bëri Boubacar Diallo salaam Diallo ah Omaro bu Cheikh Bédio bëgg nañ leen baxaaw ah yaa awo bëgg naa leen lu bëri ah astu ziar leen bu baax la Ousseynou bëgg lu bëree bëree bëri sàll ngaa lam tooro bëgg naa lu bëri yow ziar leen bu baax ah waa Ousseynou Ousseynou am na solo lool neex na ah bëgg leen bu baax a baax a baax di leen tey di ko sàkku si yéen di ñaanal suñuy gaynde nekk ci keer ci Égypte yàlla may leen ndam ñoo di kubbi fii Sénégal. maaleykum waa 2STV aw ba Serigne Saliou moo leen di nuyu. di leen safoo di leen ndamoo di leen tiitaroo nii di ñu ci plateau bi ñëpp nag bàyyiwuma kenn yéen ñëpp maa leen di siyaare bu baax a baax di leen bégee bu weer nag di kontaan lool nag ci seen émission bi amul lu mu neexee wut. di leen di nuyu bu baax waa Vision di leen ziyaara yaa awa papa salaam baxaawa omoro bul kanjar benn yoon. évasion <laughs> ah kontaan nañ bu baax a baax a baax ci yéen tonton Boubacar Diallo ah. yéen ñëpp daal kontaan nañ bu baax a baax a baax Coline Dioum. bonjour ou bonsoir je vous salue vous tous je me nomme Jessica Ndiaye depuis Mauritanie je suis très contente de votre émission vous et nous je ne dors pas sans regarder c'est très agréable je suis fière de vous Mende Assousal je t'aime seulement I love you je t'aime I love je t'aime seulement dans mon corps asalaamaaleykum waaw Veuillez Nous nuyu naa leen sant naa leen gërëm naa leen maa ngi waa plateau bi waaw Veuillez Nous xam nga ñu ngi leen di bëggee bu baax fii si Mauritanie ñu ngi leen di seetaan xam nga ñun yéen rek la ñuy xam nga émission bi mu ñun mosuñu raw quoi xam nga man tukulóor laa ma nga baam na wolof bi leerul wala samin waaw Veuillez Nous wala samin plateau foofu wala samin guiɗe moɗo telo elas ndiaye ha faydes ono fo calnama begue tonton salam ya awa asusal eva omoro baxaaw zoum sali à tous émission bi neex na asusal man dama laa bëgg rek man may sifance dama laa bëgg rek ci sama xol yow ak yaa awa ndaama gosaas maa leen nuyu eva émission bi neex na tous les samedis je vous émission bi neex na ma waaw Papa Salam comme ni nga ko seetaanee ci élément bi rek di remercier encore une fois suñu mbokku téléspectateurs yi parce que ñun ñoom amuñu seen fay ñoo jël seen i crédit di mm-hmm. envoyer ay messages di envoyé ay vidéo ay audio donc ñun ñooñu amuñu lu ñu leen di fayee ku ci bëgg nag def ni ñoom da ngay daal di jël numéro boobu nga xamante ne moom mi ngi jàll ci suuf. la daal di envoyé sa video tey nag li ma bëggoon ñu waxtaanee ci réseau sociaux bi boo xoolee fan yi nii nga xamante ne génn nañ ci euh, jëlee nañ ci ay jafe-jafe ñi ci mel ni ay star yu bëri dañuy pertu dañuy perturber seen vie ci ay yenn ci ay yenn wax yi tey boo ko xoolee ci Crépin Diatta euh, li nga xamante ne sénégalais yi ñu ngi ko koy reproché Crépin nii la mel na le la mel on n'a pas besoin des beaux mais plutôt des bons lions ñoom dañoo dem foofu pour siggil ñu sagal ñu loolu moo leen yóbbu foofu demuñu foofu wane wane fa rafetaay wala wane fa ñaawaay wala wane fa leneen parce que bu yaakaar naa bu nit doon bind boppam yaakaar naa ne ñëpp indo lañuy doon rawatina man mii nga xamante ne bu ma doon bind sama bopp dinaa bind sama bopp ba kenn du ma dàkk donc ne war nañ mën a bàyyi critiquer te xam ni yàlla mooy bind am boo leen xooj ndax danoo war a am direct léegi maalaw door boobu ngeen di dégg fan yëpp ñu ko publicité ah ca Thiès donc loolu moo tax ñoo ngi leen ci jéglu bu baax buñ sañoon dañuy xaabaabal ak yéen waaye waxtu wi nag moo xoj jërëjëf euh, sama doom sama caat saa yu ñu egsee fii nag dañu ñëw ci xorom si ah nday mbili ji li nga xam ne nag ah mooy neexal émission bi loolooy kaw téef sama doom Omaro le plus jeune PDG de l'Afrique de l'Ouest lu nu indi tey. jërëjëf jërëjëf Papa Salam kontaan naa noonu dem xool élément bi te dellu si comme dañoo am direct tey duñ ko yàggal day metti gaaw tàng te neex. ñetti lay doon ci mbaxi mbax demal te ñëw. maaraday jéebalo yéen ci réew mi xam ngeen ne donc wala boroom ñaari tur daf ko daal di lëmbe ci ayu bés bi ñu dégg nag ni coow li nga xamante ni jëm na ci dëggal leen ñu ni coow li dafa daal di bari lool ñu daal di cay lam laamee bay joxoñ baaraamub tuuma yàggul dara ci ndakaaru gii ñu daal di cay bett ñaar ñu nga xamante ni ñu nga doon dóorante di kaaw def ñu defee ni loolee ca la ñuy daal di yem seen su ndaw di ñu jàmbat ni ñu ah koo xamante ni doom la di jaayam la ci moom ñu ni dee mën ne ko moo ko mujj daal di war na loo lor la ca gën di yéeme nag moo di moom xam la ne ni dee am na di borom kër waaye nag ne ko dadi dafa jàpp ni ak télé daf ca daal di am ba tax lu ni mel daal di am ñu ni nag seen xalaat lay laaj ngeen daal di ko cay conseiller ñu daal di nag ba xam ca loolu rek la ñuy daal di yem mu ni déedéet ndaxte nag ma ne ko ñu ni ah ba xam àq dana toog dana topp boromam déet ñu ni lu waay jëf daa ko gis ndax ndaxte ma ne ko xel tey dellu nag ca way wa Omar Pène waxoon ni bi lee wujj yaay ma ne ko sennus ngóor a ngi nii nga xamante nii silmaxa la ñii ni da ko daal di dab ah wujju yaay de ko ko teg waaye nag coow daal di dem ba soxna sa ma ne ko màgget lool ba moom it ma ne ko ay bëtam ma ne ko daal di muuru waaye teewul it tekki gu suñu borom def ci kamu daal di loroon moo demoon nag ma ne ko ba ma ne ko jamono dox mu daal di koy taxawu laata mu daal di nekk ci faatu jéem naa daal di fexe nu mu daal nag génnee boobu la secret yéem ma ne ko ñu bari lool te kenn ku ca nekk nag mu jàngalaat la ëllëg ma ne ko loolu lebal ci doom wala sa doomu nawle ma ne ko loolu lañ lay fay ndax ma ne ko dem nañ ba ne yàlla léegi yàllay jooni jooni ñu daal di addu nag ci leneen lu nga xamante ni gën di daat yéemeeti ndaxte nag xale bu jigéen bi xam le ni moom ki nga xamante ni moo di sofooru papam ma ne ko dafay daal di doxaan yaayam ñi ngi daal di génn nag coow li daal di am te nee na xale bu jigéen bi moom ni moom mënu ko daal di xamal papaam ndaxte bi la xibaar doom la ci diggante bi te xamul nag daf ko war a wax papa ji wala naka lay def seen conseil lay laaj Omaro explique bu ca yamoon rek mu daal di neex ndaxte nag ca beneen wàllu seneen su ndaw di ñu xamal ni ñu dee moom ma ne ko jamono njatt na ko naam waaye soxna su nga xamante nii la mi ngi ci ni nga xamante nii moo di doxal nu ko daal di neexee waaye la ca di yéeme nag moo di ay far la daal di dajale doomam ju jigéen lay faral di yónni ca ñooñee nga xamante ni ñoo di ay faram waaye la ca gën di yéeme moo di ñooñee nga xamante ni nag ñoo di ay fari yaayam dañu far di séq ak doomam doom ji mënu ko yekke yaay ji am ma ne ko lu nekk ci biiram ñu ni yaay ji sikk wala doom jee sikk waa ñi nga xamante ni nag ñoo di góor ñi nga xamante ni mat nañ ko kilifa te doxe wuñ ko lan moo ci seeni xalaat Omaro explique ni coow dem ca kër Mbay Faal foofe noonu nga xamante ni nag xamle nañu ni ah ay lu yem ci bopp boroom naam waaye ca ñaar ña ko séq nag di ñi nga xamante ni ay mag ak rakk ba mag ja daal di mujj daal di faat ki nga xamante ni moo di rakk ji loolu ma ne ko doon lu yéeme lool ba tax nag ñu ni coow la nga xamante ni juddu na fa di ma ne ko bakkan bu daal di rot ci diggante ñaar bokk di mag ak rakk ay wu ko jara jara lijjanti Omaro explique ca lañ fa jóge nag ni saraax dugg ci coow lu nga xamante nii de ah ba jamono de jamono ba tey junj nañu nii fuñ ko daal di waxee rek coow daal di cay am ñu ni coowul suuf wala coowul miraas ku ko yëkkati doo ko fekke waaye de ma ne ko bu ni wenga ngi ndax ma ne ko alaaji mi ko yëkkati de nee nañu coow li nga xamante ni moo ko ci dab dab dabaatal ko ba léegi si terrain bi nga xamante ne kër gi ñuy atte fekk na ko ci suuf waxtaan wi mu samp laaj nag moo di dafa am lu ci gàllankoor wala daa am nu mu demee Omaro explique ca laa fa jógee jàll ci nag nga ne ko kaas gi nga xamante nii de moo lëmbee jamono jii lu jëm nag ci jigéen ñi ak seen réseau yi ña ngay dellu di xamle ni nag moom fi mu toll nii góor ñi am benn jabar mënatu ñoo yem ci ñoom waaye tamit jàpp nañu ñi amagul bu leen yaboo ñu xam ne nag takk gi moom ma ne ko dafay far di am te dafay daal di wëy ndax nag jàpp nañu seenu lim ma ne dafa daal di jéggi dayo rax ci dolleet ñu daal di xamle ni daal ñoom nemmeeku nañu ni nee nañ maîtresse gi dafa xew de maîtresse daal la ñu nemmeeku ni nee nañ dafa xew ndaxte jigéen ñi ci bokk xalaat di ko wax nag nee nañ la ëpp ca la ñuy gis du waxambaane bu takkul ñoom ñi amul dara nee nañu ñi takk dong ñoo yor fulaay nag dem sol seenub dàll di seeti waate laaj seen xalaat nag ba xam dafa am lu fa manqué wala leneen lu ñuy wuti wala góor rek nag moo doyluwul kaaw ponk bu njëkk ba may ñëwee rek kaw téef la ndax daf ci am loo xam ne ñun dañu fi teg ngir nu wax ko bu nu fi tegee te waxuñu ko dina mel ni lenn li la moo tax fait divers yi nga xam ne mi ngi xew ci réew mi di xew ci réseaux sociaux yi waaye di xew ci kër yi fu ñu mën a doon faw ñu koy leer ponk bu njëkk bi nag mooy fiiraange doomi bàyyi doomi bàyyi jam na moroom mi doomu bàyyam mu génn àdduna mm-hmm. te dara waral lu ko lu fiiraange jalousie muy ay coow yu sew sewaan yoo xam ne mi ngi am ci biir kër yi ay doomu bàyyi di ko sékk lee léeg ñu nappante léeg-léeg ñu waxante ba dënn yi tàgg na ñu tegante ko mm-hmm. waaye tubarkàlla macha allah nanu xam ne seytaane lu jara maytu la nit rey na nit tay ko yéeneem ak jubloom moo doonoon dem te moom faat ko génne ko àdduna mm-hmm. waaye nit rey na nit te ba tey mi ngi koy jooy mm-hmm. parce que tay ko doomu baay bii rey na moroomi doomu baayam te ko waaye la ko waral mooy seytaane jub na ci seen dikkandi yaram tàng na bëgg naa wane kilifteef ndax mooy mag moom la bàyyi di njëkk jur seet weneen soxna ñu doog ko ci jur moom mu bëgg koo wan ne ba may jur bi juddu woo sama ndey ba muy seeg sama baay sëyu leen daal di tàng ci kawam am nu mu jëflante ak moom ba daal di koy daal di koy roqos waa ji daal di mujj génn àdduna mujj faatu mu metti loo xam ne seetlu nañ ne jamono ji day xew ci lu bari ci suñu réew bi di Sénégal rawatina ci wujju pertor begeeg euh, doomi bàyyeeg ñeneen ak ñeneen ñi te muy lu metti ba tax na ñoo ngi ñaan yàlla wis ci ndox mu sedd ba yu mel noonu ñu bëgg di ko dégg ci suñu réew bi Sénégal mm. beneen bokk bi ci topp na papa salaam kii doom la daf maa woo ba ma ñëw mënu ma Omaro ma ne ko daam mënu ma dama laa dégg ngay def kawteef te man maa ngi dund loo xam ne kawteef la te mënu ma ko wax ku yàlla bind Omar yow laa ko wax parce que dama ci bëgg am solution dama ngoo ma ko ca plateau ba bu dee ñaari baat la sax nit ñi wax ko fa ma xam man fan laa jëm sama yaay dafa nekk ci ay jafe-jafe sëyatul ak sama baay bi yàlla dogalee sëy bi tas tubarkàlla macha allah sama yaay jël ñi nga xam ne mooy studio dëkkal ma fa man ak suma rak mm. man ma nekk taawam waa yàlla dogal sama loxo jotul sama ginnaaw ndax ci njàng laa toll sama rakk it ci njàng la toll bu dee man magam may jàng waxatuma la ak moom su ma yaay yaakaar ko ci ay góor yoo xam ne yàlla da ko boole ak ñoom ñuy ay faram waaye rek duñ ñett duñ ñeent ñaar lañu kenn ki mag la kenn ki moromam la te dara warul ko dara dugalu ci suma yaay lu dul bëgg lu mënu dimbali yàlla dogal nag jamono jii mu tawat yaramam neexul la mënaloon boppam mënulatu ko mu may yabal ci ñoom ngir may dem ca ñoom di ko sàkkul ndimbal ca ñoom di ko indiwaat ci kër gi mu koy def ci njaboot bi waaye ñoom ñaar ñëpp saa bu ma ca demee dañu may xemmeñ ba dañuy jëri ak man jëri joo xam ne bu fii may waxee joo xam fu ma koy nettali sama at koo xam ne sa yaay la ko ci koo xam ne moom la woon ak sa wayjur tey ngant ak tawat tax na mel na ni kooku faatu na moo tax Sénégal ku fi ne euh, te woo ci aw yoon gëmoo yàlla gëmoo sa bopp dëgguwoo di nga dugg ci lu ne yow bu fekkoon kii dafa dee sax loolu waru bu dee woon sàkk doomam jëflante ak moom waru la waxatuma la ak muy dund tawat sonal ko ba mënatu la dem mënatu la dikk mu yebal doomam ci yow ngir mu sàkk ko ndimbal mu ñëw nga jëriñoo daal di jàpp xale bi jëriñ ñoom ñaar ñëpp ki tolloog ndayam ak ki mag ndeyam fu mu ci dem ñu daal di koy jëri fuural ko ba fuur ba ko mu dem jox ko jox ko la ne jàppalee ndayam mu yóbbaale ndaes su ana loo gisee loolu ban jàngat nga ci am ah man ne papa jànga bi ma ci am vraiment euh, du ma pointe nag du doigt kenn ku ci ne parce que ku ne yaa xam nekk ci yow waaye damaa jàpp rek ñàkk warulaa tax a ñànki parce que barki démb yaa ko wax na ko fii donc mhm. suñu borom gémmiñ bu mu xar def ci dara donc pour man nit ki même booy tibb suuf di ko lekk sax danga nga war a des ak sa ngor parce que euh, yàlla mi ñu fi andi mosoo gis tey surtout ci réew mi ñu nekk gisoo fi ku fi toog dund fi ba xiif rey la wala ñàkk rey la mhm. lu métti métti métti da des ak sa tey mu ngi nekk di jàng tey am na ñoo xam te ne ay élèves lañu dañuy nekk ci seen ay dëkk di jàng su hmm. vacances jotee dañuy dem ci yenn dëkk dëkkaan yi dafa ut ay liggéey moo xam dañuy jànku moo xam dañuy jaayantu hmm. di am lu ñu seen biir kër donc pour man tey solution musu fi ñàkk hmm. ba tax ngay dem ñu lay sàkku ndax tey benn weccee ba ngay am foofu noonu nit gor dafa gor dafa dafa jafe daal lu mën a am rek desal ak sa ngor te xam ne que yàlla moo ñu fi nekkal te ku fi gémmiñ bu mu xar def ci dara donc maman waaw waaw papa salaam ma ci wax rek euh, mooy euh, comme li may faral di wax wéet gore wéetali ko gore mm-hmm. nit da ngay gore ba xëy dee ndaxte yàlla gémmiñ bu mu xar rek def na ci dara mm-hmm. boo amee dara santal yàlla boo amul dara santal yàlla te nag Omaro dama koy sant parce que ponk bu mel ni dafa am solo mm-hmm. gore daal euh, gisatuñ ko ci dëkk bi yàlla nañu yàlla defal jàmm jërëjëf papa salaam beneen ponk bi ki topp it ni tubaab tuddee confession la confession confession mooy nit koo xam ne mu ngi dund loo xam ne mënu ko wax ca mbooloo mënu ko wax ci télé yi mënu ko wax ci rajo waaye am na ku mu wóolu ku mu yaakaar woo ko ba mu ñëw waxtaan ci ak moom xale bu jigéen bi dafa maa woo ba mu ñëw mu am ci man yaakaar wax ak man ne moom ma doon mën a ko dama dëkk ma sama papa ak suma yaay sama papa di borom bi teraanga di borom cër ci réew mi di kilifa yàlla dogal tubaarkàlla macha allah mu chauffeur bu koy dawalal ndax mi ngi jëm mag te mënatu la daal boppam waaye cofeel dafa dox diggante suma yaay ak suma bu bàyyi ñuy génn génn woo xam ne man bett naa leen minimum lopp fukki yoon ak ñaar waaye mënu ma confidence la wala confession la confidence la. Euh, confidence confidence la. ah, ah man man de li journaliste yow lañ xale bi dafa ñëw pour confesser la. waaw dafa ñëw pour confesser ma. waaw confidence la parce que man la ko wax. confidence am na bien sûr am na. bii ban la ci na leer balaa maa avancé. waaw na leer c'est des mots de la même famille. confidence confession confesser mais bu fekkee elle est venue te parler. ci man la ñëw wax na ko ndax naqari na ko ci xolam te amu ci pexe te mënu ko wax fépp. mu ñëw wax ma ko am ci man yaakaar ba noppi di ci sàkku it ay kaddu yu mel ni kaddu Alaaji Baxaw mi nga xam ne rafetlu nañ xam-xam ci réewu Sénégal kaddu évasion mi nga xam ne tubaarkàlla wër na ak ni juróom-ñaar ngir ñu wax ci seenu xaar mooy lan moom yëg na gis na dégg na am na preuve yoo xam ne bu ko doon wàññi nee na dana mag douze yoo xam ne may na ko mu xam ne chauffeur bàyyam di génn yaayam te chauffeur bàyyam ngi ci kër gi dawalal bàyyam bàyyam ngi ci kër gi moom mi ngi ci kër gi ak magam ak rakkam léegi xol ba mënatu ko muñ yéenam mooy wax ko wax ko bàyyam te bëggul sëy wi tas moom bu ko wóoroon ne bu ko waxee baayam dinañ ko gérer liggéeyantu ko sëy ba wëy da koy wax waaye li ko wóorul mooy est-ce que bu ko waxee baayam sëy ba du tas te bëggul baayam a yaayam di tàkk li ko muy jóge ci moom taabal bi ku ci mel ni Alaaji Baxaaw sànni ci kàddoom wax ci xalaat loolu Omaro euh, dafa nekk loo xamante ne euh, da koy wax pour man bàyyam par force doole mbam parce que quand mm-hmm. euh, ki la sukk jur ci farata mm-hmm. mu nekk ci bu mu sëy mm-hmm. xam na lu xam na lu ci li ci lislaam wax bu dee sa ndey la aussi nga gis ne mi ngi sëy ak sa baay te sëy boobu amul lu ci amul lu ci euh, amul lu ci dëng sëy la boo xamante ne tegu na ci diini ba fu ñu toll nii pour man yoon moom mooy bu gisee la nga xamante ne lu mbon la lu ñawteef la am na pour dem na papaam yaayam mu ngi si tànk yi nga xamante ne ay tànk lii ak lii la parce que xol dafa nekk loo xamante ne kenn du ko contrôler mm-hmm. yaayam bu demee ba am cofeel ci chauffeur boobu noonu na jéem a xool naka lay tase sëy boobu dem sëy ak chauffeur boobu parce que lu ko may mi ngi njaalu mhm. mi ngi def bàkkaar yoo xamante ne bésu pénc dina ko leeg boromam mhm. dana taxaw borom bi taxaw jëkkër ji taxaw mu layook ak moom te yàlla na yàlla musal ni ko Baxa waxee rek parce que cas bi moom c'est un cas extrême en déjà ndaw si mu ngi dund loo xamante rafetul ndax ni ko Baxa waxee njaaloo la déjà première fois bi ko doomam bettee la waroon am gàcce même bu koy seq ak chauffeur am na doon faneen mais bu mu doon ci biir kër gi mais comme dem na ba doom ji tamit mënatul téye boppam man pour man xale bu jigéen bi rolam c'est pas que moom moo ko war a waxi bàyyi man bu doon man la man dama pas personnel damay waxtaan ak sama yaay waxtaan ak moom moom ci boppam mu confeque confessé ko sama papa pour mu dem avoué li nga xamante ni moom lay dund ci biir kër gi ndax man mii di doomam gàcce la ci man mm-hmm. te man aussi elle me donne pas un bon cela veut dire que su may topp topp moom li muy def ma koy xool ëllëg si biir mën naa def comme moom kon moom nekkul di yar doomam tegu ko ci sur la bonne voie. Thiat. waaw papa salaam xanaa di ñaawlu loolu nga xamante ne moom la ñu wax Omaro pour ñu indi ko ci plateau bi parce que ku dégg loolu xam ni loolu diine nangu ko boo demee ba xool na ba sa xool nangootul ci ki nga xamante ne moom moom nga nekkal da nga war a tas dem ci ki nga xamante ne moom nga bëgg. loolu daal j'espère que c'est bien clair. éclatement général. Mm-hmm. kaw def boo def bii mu ci gënal. Mm-hmm. ndax fi mu nekk da nga éveiller la population. Mm-hmm. dugg ci biir kër yi li ñuy nëbb di ko rumbalaat. nga wane ko ba pare ñëw ñii. nga xam ne xam-xam rek la ñu fees. doguma la de nga baal ma mais loolu dafa bëri mooy sérieux. xam nga pourquoi ma la dafa bëri jigéen ñu bëri tey ñu ngi ay góor yoo xam dañu yor alal. mais mbëggeel amu fa. ñoom ñëpp koo ci gis yaa ngi nekk parce que am na alal bu mu lay jox ba pare yow yaa ngi far ci à côté. dafa bëri lu c'est parce que dañoo gëmul seen bopp. ndeysaan gëmuñu seen bopp jërëjëf ponk mujj bi nag nga xam ne moom la ñuy tëjee ndax jeex na euh, recherche la boo xam ne yow képp ci wax ndax tubaarkàlla macha allah dafa laaj tey koo xam ne kilifa la ku yàgg ci àdduna la muy nit ci xalaat te comme yàlla dogal na yaay suñu bàyyi yaay suñu kilifa ci jotaay bi ñu bëgg ngeen di ci leeral mooy xale yi jigéen ñi dañ maa woon dama ñoom li leen jaaxal mooy dañuy laajte man leen lu xew ñu ne ma ñoom ñi leen di doxal jamono ji yëpp trois ans yi mujj yëpp ñii ñëw ci ñoom di wax waxi nobel ñii am nañ benn jabar ñi am nañ ñaari jabar marié yi daal ñooy dem di doxaan yi xaw ma dañoo bëgg a takk dolli xaw ma lu xew célibataire yi léegi doxaanatuñu léegi célibataire dafa amul ci réew mi wala boog xale yi jigéen ñi ñoo ñoo soyé ñoom ci seen bopp préféré borom jabar yi ndax ñooy takk c'est quoi le waaw saa yu ñu yeggee fii nag dañuy am invité tey nag suñu invité dafa spécial xale la boo xam ni Ndakaaru la juddoo yaraw fi màggee fi plus précisément fa nga xam ni mooy Médina Médina nag da def noonu benn way rek benn waykat kese fa dëkk déedéet waykat bu mag bi ndekete moom rek dëkk fa ñu ne moom rek lañ koy nangul ñu ne déedéet ndekete am na keneen ku ko nangul koo xam ne ca yar ga ca mën a way ga jox ñëpp cër bu tëggee bu waat ñëpp fees kooku nag tey man moom laa dem ba loqati ko ndax ñëpp ñu ngi ma doon wax yéen kañ ngeen koy invité tey nag ma jële ko ba ci kaw indil leen ko yéen waa vous nu ko koy El Hadj Bamba bari doole xaadim borom jaam ñi El Hadj Keita jërëjëf ci sunu invitation bi nga xam ne ñoo ngi la ko nangul ñoo ngi lay nuyu ñoo ngi lay ziar El Hadj salaam maa ngi lay fay di kontaan ci seen invitation bi di nuyu ñi toog ci plateau bi yëpp macha allah plateau bi taaru na di bég ci vous et kontaan naa ah jërëjëf gis na ni tey moom cofooñu ndax yaa ngi indi orchestre au complet rawatina nag sama grand frère bi nga xam ne moom nga àndal mooy Omar Kassé di mm. doom ci ki nga xam ni mooy mooy Ibra Kassé bi nga xam ni moo tette suñu grand frère ci musique sénégalaise El euh, ñu gis ni da ngay woy ci yeneen facette léegi bi nga génnee léegi yaa ngi génne di woy mandingo xanaa loo nàmp la waa lu ma nàmp loo xam ni suma deret la bokk ba pare euh, yàlla defoon na <clears throat> ma bokkoon ci compétition bi ñuy wax Kassanga au Mali c'était en 2008 ma demoon représenter Sénégal loolu nag jàngal na ma lu bari ci làkk bi ba pare euh, damaa toogoon Sénégal rek te xaw ma woon sunu làkk waaye bu ma demee sunu borom def na euh, ma am tuuti lu ma ci jël xam ni lii lu ma moom la ah, moo tax ma jël ko loolu képp la ah. ndeysaan sa digganteeg Médina ndax yàgg na dégg ay woykat Médina mais yow nga ñëw am benn complicité ak Médina rawatina waa Kër 5-5 rythme mais xale yi mag ñi ndaw ñi foo tëgg ñoom ñëpp mu fees fa dell loolu laa bëgg a xam lan moo waral loolu sa digganteeg loolu loolu am ak jàmm ñëpp la ba pare xam naa sama simplicité tamit moo leen neex ak depuis lors su suis resté humble et modeste tamit parce que ñoom ñooy ñoom ñoo ma yóbbu fi ma fi ma nekk nii moo tax mënuma leen jaay dara moo tax ñun dañuy gën a wàccee suñu bopp rek di gën a doon taalibe xam naa loolu képp yéeg-yéeg boobu ma am ci ñoom te ku ma ci woo ma wuy la même anniversaire damay defal ñoo xam ne ay vidéo lañ te duma leen sax xam xam naa yéeg-yéeg boobu la ak cofeel googu rek mooy waral suma xewle rek ñoom ñu ñëw loolu képp la loolu am na solo ba xaaw waaw maa ngi lay maa ngi lay nuyu maa ngi àndal yëpp Euh, man sama question salaam xaw na ci yeeg mais quand même leneen lu mu lay bëgg a laaj El Hadj damay remarqué euh, à chaque fois xaw ma kan moo nekk sa ginnaaw nag damay gis à chaque fois sa publication yow ay J Marti euh, J Martins da ngay def ay dama lay yenn plateau yoo xamante ne ne eh, c'est sur le plan international naka ngay def ba link yooyu di am kan moo nekk si sa ginnaaw. loolu nag ma koy remercier muy sama papa Mbacke Dioum. moo nekk ci ginnaaw loolu yëpp. parce que mooy sama producteur. ci moom laa jokk ma nekk premier sénégalais nag bi bokk ci Afro Records Sénégal muy label boo xam ni euh, c'est un peu international man kese maa ci olof kon loolu sax la te Mbàkke moom ma yóbbu foofu ma ci sant bu baax. loolu kees la boobu moom mooy gérer Akon euh, au Sénégal. mooy waaw mooy gérer Akon au Sénégal mooy gérer euh, Hakim. Hakim yoo xam ni ñu ngi Nigeria. ñu bari macha allah waaw sant rek loolu. loolu dëgg la am na solo Eva. Euh, El Hadj ñu ngi lay nuyu. fay naa la Eva di nuyu sa waa groupe yëpp. merci euh, di rafetlu sa teewaay ci plateau bi. en fait dégg naa la léegi ci sa biir wax nga ni yow rek yaay wolof ci biir euh, label boobu yow wolof nga wala malien nga wala da ngay làkk bambara parce que say son daf mel ne da nga ciy làkk. bah je suis né ici hein. deuxième question bi et que je veux savoir parce que booy way j'ai l'impression que Salif Keita laay dégg. ci sa euh, ton ci sa euh, air voix est-ce que Salif Keita sa idole la wala danga nga ko da nga ko bëgg en bien sûr dama koy déglu lu bari mais c'est juste que euh, loolu dañ ko yàgg tàmm dañuy déglu nit ba am voix am ba sunu borom def na loolu ci ñun bu ñuy bu ñu imité nit sax da ngay defee ne kooku moom moo toog loolu nag may suñu borom la du suñu njàmbaarte du suñu mbóore loolu képp la ba pare ñuy def ay recherche parce que ce n'est pas difficile de copier le plus dur c'est de créer des trucs yoo xam ne yaa ko a sa bopp yoo xam ne mais da ngay jël tuuti rek boole kook li nga yor boo demee day xaw a am changement de couleur yoo xam ne mooy lool c'est juste ça. dëgg la mm. maman. waaw papa salaam tey nag euh, da ngeen invité ku ma ñor. koo xamante ni macha allah dafa sori ci man mu nekk sama frère nekk sama mm. xarit moom la ñuy wax le Neymar de la musique sénégalaise moom it nag ma koy nuyu bu baax di ko dalal jàmm su mm. suñu plateau vous et nous tamit euh, sa waa groupe mm. waaye nag euh, papa papa Salam ki ngeen gis ni il est très polyvalent dafa nekk artiste boo xamante ni dafa mën lu muy def te à chaque fois damay fàttaliku suñu papa euh, yàlla na ko yàlla yërëm mu di El Hadj dafay faral di wax naan woy dafa am woyantu am woyandoo am te kii dafa mën a woy pire ndaanaa nag nii fu mu tëgg day fees nit gënu ko tey nag dama seetlu ñi mu bokkal génération ñëpp am na ñoo xamante ne dañuy topp ambiance bi am ñoo xamante ne dañuy topp way bi waaye ci lu mu way tem la borom album sept titres yi. yàlla na sa jàmm yàgg man nag aw ma question bu ma lay laaj damay bàyyi sama nawle rek ñu daal di continuer. deuxième morceau c'est maintenant. salaam lii laa bëgg a taj taj plateau bi na yëngu waaw taj taj. put your hands Put your hands up. Walla walla. Put your hands up. Walla toida. Put your hands up. Walla toida. Put your hands up. Walla walla. Clap your hand. Walla walla. Fancy xaminaci kii wallaahi si xame naa ci kii wulaay ak l'enfant chéri de la Médina et l'âge qui t'a yegsi na ak i femam saabu du fóot boppam waaye soo xëbee nga nekkoon fu ma xewle ngeen teew même buy taw ni ndag yi wuy si ma waaw waa Nouvelle Vision bëgg ngeen ma si ma wey ma wey yooy loolu bari na moo nag yéen ba à rafet na njurt su ma bàyyiwul ba xaw doo leen bàyyi fans yi fans yaa ñoom du nu ma sa bàyyi salaam am na kilifa a ma daan wax ku la gëm gëmal sa bopp ku gëmul gëmal sa bopp ndax bësu am bu jotee ku am nga am ku amul nga am gëm naa sama bopp feccal feccal ma waay feccal feccal ma waay feccal feccal ma waay feccal allah ji fay kaay mooy xale bu xew si jamono ala lu mu tegul baaxul seg sa maam bu seyee sa maam da nga sa maam jërëjëf Papa Salam ñi nga am mbégte bu baax te am kontaan lool ci plateau bi tey nii mu tëree dañu ci am xol bu sedd lool ndax ki nu dalal tey El Hadj Keita man du ma ko posé question ndax moom xam na man xam naa euh, yàlla booloon nag kóllëre bi yàgg lool boobu démb la tey soog a ñëw ca gën tàpp gu njëkk ga. li ma lay wax nii bu dul la jàpp banu Serigne Béthio Thioune jaamu Serigne Saliou mii mi rendre hommage boo déggee li tax mu koy way di ko wayaat xam na ndax keroog wax Xaadim Thioune El Hadj dama ko daan invité chaque daara moom daan woyal boobu man sama dund xalaatu ba danaa dund ba way El Hadj laa daan woo moo dàq jàng xasida ci réew mi ni mu toogee nii. Hmm. Sikar ak way cant gisuma ci Sénégal ku ci man El Hadj ni mu toogee nii. damaa mën a tiiñal nit de. barke tiiñal ko. ku ko mën la tiiñal ko. ku ko mën la ngeen maa bañ a dugal ci yooyu. waa tiiñal ko ma doog a yeggali tiiñal ko. moom xam na sëñ Abdou Diouf. yooyu mat la bu ci fay ba xam na ko. tiiñal ko ma doog a yeggali. El Hadj man ay xasida daf may rey de. <laughs> حمدا ينجيني وانا دواني ومنزلي شفائي ودمائي واحمل الإيمان بدوائي ليرفعوا به عن البلاء ثم على من ثم ثم يبدا بدابو وبالفن محمد تبي بنا الحكيم أزكى سلام ربنا الكريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا عظيم ndeysaan ndeysaan bugguma ko bugguma ko di loolu bokk naa ci ñu ko def bugguma ko di ko def di takk ay chaîne wala may takk ay bling maa ngi tuub nag di jégalu. kenn du Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu jërëjëf Papa Salam sama xol dafa na ko fi téye ba fajar. te bayit bu mu wax du ko waxaat. li ma la xëpp na 10 ans laa la woo El Hadj mënuma ma kaay sagal ma. ndax kat damaa am daara te aw ma waykat. te ñeme maa kenn ndax waykat yi koo ci woo di ko jox paas ay tur. comme maag yow bokk dul tàpp ak mooy ñëw jàng xas de yi wayal nu Serigne Touba seddal suñu xol yi ba nu bekk ku ñu ñibbi. moo ah. tax keroog ba mu dooree lii nga xam ne mooy carrière solo man na njëkk woo El maa njëkk yëg ne dana def musique ci Sénégal man la njëkk woo na ma grand ko naa mënu ma defal ñaan ndax yow suma xarit nga suma doom yaay nga te bëgg naa tàbbi ci weneen liggéey la ma ci jublu nag mooy liggéeyul ci ku tedd ki dem fa jëlee fay xéwal indi ci daara tàllal ay loxoom ma ñaanal ku mu dem boobu ak léegi lépp ngi rafet tàccu la moom lépp ngi daal yoon maa ngi la ñaanal nga dund ba pare ma ko daan nag suma papa ngi nee awarkase may toog moog sama tubaarkàlla ñoo a ñëw mooy bàyyi idi kase clavis mag bi papa yàlla na ko dund yàlla na sa jàmm yàgg jërëjëf El Hadj ñu ngi nga dem parce que fi mu nekk da nga ñoo daaneel mm-hmm. ndax bayit bii nga yëkkati matlabul sifa yi Cheikh mm-hmm. Ahmad Bamba bind ko mm-hmm. ci képp koo xam ne da ngaa am tawat boo ko jàngee yàlla saafara lépp man bett nga ma ndax bàyyi Abdou Diouf yàlla na xippee àjjana ah moo moo ko doon jàng man day bett nga ma te gën naa laa jàpp nag mm. ndax man Serigne Bamba mooy sama repère mm. barke Cheikh Ahmad Bamba Khadimul Moustapha maa ngi ñaan ngeen tàccul ma ko bu baax ana looy tàggoo ak projet yi waaw projet yi comme dañ nekk ci label ñu ngi déglu Mbacke Dioum rek ah, ah, di ko déglu comme moom maa ngi waaj nag lu garaaw mm-hmm. ak baxaw mi toog moom tamit yàgg na jàpp ci carrière El Hadj daanaka morso sama morso bi ma def maag suwaadu sax suwaadu jaw ñi ngi waajal clip bi moom moo ko bind mm. macha allah mama moom daf ma yàgg jàppale daf ma yàgg jàppale ndax fépp fu mu dem rek mm. invité na ma fa ah, di nuyu ñëpp ñu toog ñi ñoom Eva ñoom Astu Astu tamit ku baax la kii maa ngi moom a dëkk moom day soxna maa moom ñoo dëkk Fass muy ku baax tamit Omaro sama diggante moom loolu démb la di kontaan daal ci seen invitation bi di bég ci yéen maa ngi gërëm sa musiciens yi euh, nday asu sall taalibe sëñ Babacar euh, dina am lu mu la wax ba pare daal di tàggatoo te nag wax nag euh, tàngal yow moom dana la waroon teg fii rek <laughs> ndax yaag tàngal benn ngeen ana looy wax El ak looy tàggatoo waaw El Hadj ban message ngay jox pour leen Lions du Sénégal waaw Lions du Sénégal donc comme ni ma di supporter toujours depuis le début vraiment di ñuy sagal di ñaan aussi ñu continuer di ñuy sagal. ku mm. ñu continuer di jubiler ba fin bi ba andi ko bi incha allah donc force à vous incha allah match demain bi ñu leen di ñaanal ndam ngeen am ko suba ci demi-finale am ko aussi fi nga xamante ne mooy finale incha allah parce qu'on a vraiment ndam incha allah demain. Euh, El Hadj nag donc j'avais deux questions pour vous mais malheureusement comme temps bi dafa xat dama lay laaj bu ndaw rek mooy El Hadj Keita est-ce que mën nañu xam tey ci musique sénégalaise bi est-ce na xamante ne mooy idole ak kan la. donc loolu rek moom moo nekkoon sama question. idole bi. Mhm. waaw ah muy sama papa Youssou Ndour ndax Medina laa juddoo. Medina laa yoro foofu laa màggee. Mhm. te si ses yëpp yi am yëpp man joué naa sama papa Youssou Ndour première partie kon awma lu dul topp ci ginnaawam di ko déglu moom képp doy na ma idole. macha allah <laughs> jaajëf ana looy wax El Hadj ak loo koy tàggatoo ak looy wax les Lions du Sénégal soxna. xanaa di leen félicité rek ci ndam bi nga xamante ne jóge nañ ci di leen encourager tamit ci match demain bi incha allah. El moom je pense que awma question bu ma koy laaj ndax man doomu Fass laa foofu laa juddoo foofu laa yaroo foofu laa mhm. foofu ñëpp a ko fonk ñëpp a ko jox cër te moom aussi jox na ñëpp cër donc du def lu dul di ko ñaanal yàlla yàlla wéral baat bi di remercier suñu mbokku téléspectateurs yi ñu doon seetaan di leen jox dig daje samedi bi di ñëw ci beneen numéro vous et nous. Omaro mu Cheikh Béthio lay tàggoo. jërëjëf Papa Salam di kontaan rek. dama bëgg. Mhm. yow doomu géwal nga. di taalibe. li ma nar a wax dama la ko yónni. nga waxal ma li ko dalee ci. Aliou sa ba ci Krépin Diatta ba ci Gomis bu yor kaa yi ba ci ki nga xam ñëpp ñiy toog ci touche ba ñëpp nga waxal ma ñoom maanaam sunu maam yi nan doon kañee. ba ñuy dem nga waxal. les ah, lions Papa Salam jàmbaar ca waar wa. Omaro defaral sa toogaay. noo bëgg ma toogee da bëgg ma. da nga bëgg mën nga wax ak ñoom ci fulla. ma ah, ah, xam ne da ngaa mer. am na loo bëgg. da di kañ. Papa Salam jàmbaar ca waar wa. te wolof dafa ne dugg dugg xël la karbat xël la njàpp la waaye mës a gën a gaaw te wàcc ma daan naa la wóorul ku daan da ngay féete kaw. tubarkalla macha allah sunu gaynde yii nga xam ne ñoo dem ci jogante bu mag boobu nga xam ne ma ngay xewee ci Égypte di daan seen doole di jangonteeg seeni nawle nanu xam ne ay góor lañu benn waaye ñaareel ba nanu xam ne ay der lañu ay borom bi jom lañu Sénégal du ñuy si ndax du ñuy bëy du ñuy unk du ñuy jaan du ñuy mbóot ay gaynde lañu nous sommes des lion les lions de la Teranga kon gars yi bàyyi leen xel ci ne ay gaynde ngeen gaynde nag am na lu muy doxee ci àll ab gaynde buy dox ci àll ba bay yàpp ko di ko roqos ak di ko noqos ca doxin wala gars yi ñu ngi ci yéen yaakaar loolu tey bég ci yéen di leen wax nag ne leen fii ñu nag li ci des c'est le moment bu sobee fii lay ñëwee wala dootul ñëw bàyyi leen ngeen ñëw toog ñu def leneen <laughs> kon teg leen ci seen bakkan te xaru ko te xam ne soxla wunu demi final soxla wunu final coupe bi lañu soxla le ministre des sports Matar Ba mu baax mi nga xam ne boobu léegi ma nga foofu ak gone yi teg ci bakkanam alors rek la war njiite fédération bi loolu moo leen war ñu yëgu ci wàllu sport ci réew mi ànd ak yow ca loolu loolu moo leen war kon teg nañ ci seen ba bakkal te jaayante ko te xam ne ah la joon nga noon la tir Diop Alburi Njaay jëri joon ndeera ñooñu bañ mosaa la dem xare seen i nawle ak seen i jiri yoo dañ daan taxaw xamal leen nekkat ndam la ñuy xaar na ñoo ngi daan demee jëli ndam indi ko noonu la ñuy xaaree ci yéen ndam ndax tey nag tubaarkal la guerre am na xare am na waaye ci weneen façon bokkut ak ba woon ba woon dóorante fetal la woon ba woon reyante la woon ba woon jamante la woon waaye bii nag football la bal la am njaay joxal Diop tic tac timbax rimbax Tumba Rumba. kumbi dikk Sénégal ba xaw bëgg. Sénégal daal yàlla na fi yàlla def jàmm. Euh, vous les lions on est de tout avec vous. maanaam nag ngeen gañe ak ngeen ñàkk a gañe ay doomu Sénégal ngeen da ngeen dem ngeen wut. am ngeen jom wane ngeen ko xuloo ngeen xeex ngeen lu ne def ken ko coupe bi la nu bëgg yàlla na ko yàlla may. élage na safa saf na saf na safa saf ay na saf. yëngal hélas yëngal ay way yëngal yëngal yëngal yëngal eh, fii la hey yëngal hey yëngal hey yëngal yëngal yëngal yëngal yëngal hélas yëngal Bira Fall yëngal borom France yëngal yëngal yëngal yëngal sa waa ji xaru jigéen sëy la bul ko saay saay nga naan kaay

Sadio Mané bu ko neexee dafay ah. daas jibile waaw jibile jibile waaw jibile waaw jibile jibile Sadio Mané Sadio Mané def ku ci biir def ku ci biir gànn gi gànn gi def ku ci kaay ku ci kaay kerepe kerepe def ku ci biir def ku ci biir gànn gi gànn gi def ku ci biir def ku ci biir kerepe kerepe def ku ci biir ku ci biir Kujibi Jubile Jubile Jubile Équipe nationale waaw Jubile Jubile Gana Gueye Gana Gueye def ko ci biir ko ci def ko ci biir ana Mbaye Diagne ana Mbaye Diagne def ko def ko ci biir Koulibaly ay Koulibaly def ko ci biir du ci biir Henri Sène Henri Sène ah, def ko ci biir def ko ci biir Mbaye Niang bay ñaa def ko ci biir ci biir Aliou Cissé Aliou Cissé def ko ci biir def ko ci biir Youssou Dieng Youssou Dieng def ko ci biir def ko ci biir dada ah, at gada ci activité activité jubilé jubilé jubilé équipe nationale jubilé Jibini dibinde. Eh, eh. Omaro, ah. Ah, Omaro, def ko ci biir ak ci biir. Omaro, ah, Omaro, def ko ci biir def ko ci biir. Omaro, Omaro, def ko ci biir ko ci biir. Amida, Zana, def ko ci biir kërëpee jaat kërëpee jaat def ko ci biir ko ci biir gànn gi gànn gi def ko ci biir ko ci biir ana mbay jaay ana mbay jaay def ko ci biir def ko ci biir Ali Cissé Ali Cissé def ko ci biir def ko ci biir jibile jibile jibile jibile waaw jibile jibile jibile jibile jibile jibile waaw jibile jibile eh, eh. xale biile biile merci beaucoup